salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors tey le dimanche 27 février 2022 euh, ñu fas yéene àndaat ak yéen ci beneen épisode tey nag mu nekk benn épisode spécial parce que nag dañuy waxtaan ci football. alors suñu waxee football nag peut dina jaaxal ñu bëri ñu ne waa mais wolof tech ak football mais dañuy waxtaan ci football ak technologie maanaam. fan la technologie toll ci wàllum football ak lan la ko mën a jëriñ yan xeetu euh, xarala yu bees lañ am ci football bi tey ci àdduna bi mais aussi fii ci Sénégal fan la ci toll fan la technologie toll ci wàllum football est-ce que suñu informaticiens suñu start bi euh, ñoo ngi liggéey ci wàllu boobu mais est-ce que aussi suñu équipe bi maanaam suñu coach yi ak euh, yu demee noonu est-ce que ñoom aussi ñu ngi intéressé wu ci technologie bi pour liggéey ak gars yi pour mën a rendre football bi beaucoup plus performant loolu yëpp nag parce que. tey football am na fu mu toll ci àdduna bi nekkatul am po kese mais dafa nekk aussi loo xamante dafa am ay ngëneel yu bari bari bari bari te gis nañ li mën a jur pour benn réew alors pour waxtaan ci foot nag ak technologie dañu si ànd ak suñu invité tey maanaam Seydina Issa Aidara euh, nekk coach ci école de foot jàmbaar mais aussi euh, xam-xamam match ci lépp lu jëm ci wàllu naka la ñuy jëfandikoo vidéo yi nga xamante ni mooy match yi euh, càmbar ko pour g ci ay xam-xam yoo xamante ni te ñu ñu permettre suñu équipe bi gën a mouvement alors Seydina nañ la. yàlla na yàlla nangu ziar donc maa mhm. suñu beneen invité bi nag moom moo ngi tudd Amadou Korka Sow euh, nekk ingénieur informaticien di liggéey umu informatique nekk aussi benn fan de foot bu mag a mag mag aussi je pense <laughs> Amadou nuyu nañ la. Hmm. macha allah alors euh, waroon nañu am nag beneen invité boo xamante ni mu ngi tudd Abdoulaye Seck mais malheureusement dafa nekk en voyage donc moo tax du mun a mënul teew alors donc ñu ngi koy nuyu bu baax a baax alors euh, donc ci sunu épisode tey bi nag euh, dañuy waxtaan ci football ak technologie alors ñu dem directement ci épisode bi n'est-ce pas pare ah? hmm, ñu dem donc directement ci épisode tey bi maanaam nous sommes les champions d'Afrique de foot alors parlons de foot teg maanaam ñoo dax football ci Afrique kon nag nañuy waxtaan ci football ak xarala yu bees yi. alors euh, ci fan yi ñu génne nii nag bari na ay événements yoo xamante ni xew na fi aljuma ni comme ni ñu ko waxee léegi coupe du coupe d'Afrique bi bi nga xamante ni jël nañ ko mais aussi stade Abdoulaye Wade bi nga xamante ni inauguré nañ ko fan yi passé rek ci jam Diamniadio loolu yëpp nag nekk ay euh, ngëneel pour Sénégal euh, ay ngëneel yu mag la yoo xamante ne bu Sénégal la loolu tax nag ñun en tant que ay acteurs ci wàllum xarala yu bees yi ñu war a génnee suñu mënin xool aussi naka lañ war a def pour jàppale football Sénégal comme ça mu gën jëm ci kanam comme yeneen nations yi nekk ci àdduna bi yëpp yëpp yëpp alors Seydina est mën nga ñu déjà mën nga présenter wu yow déjà rapidement wax ñu lan moo nekk sa liggéey ak sa liggéey ça consiste à faire quoi ci euh, ci benn équipe quoi. waaw bon comme ni ko xamee donc Seydina Issa Aïdara aujourd'hui fi ñu toll nii wax bi ñuy wax nii entraîneur de football la euh, maa ngi nekk institut Diambar bu Saly donc nekk foofu entraîneur adjoint ci équipe professionnelle bi donc en même temps aussi yore série vidéo donc euh, analyse vidéo la en même temps et aujourd'hui aussi maa ngi nekk euh, entraîneur équipe nationale euh, adjoint équipe nationale U23 ak local Sénégal après jaar naa sélection yëpp équipe nationale U17 équipe nationale U20 U15 U23 ak donc bokk direction technique nationale voilà mais avant j'ai été joueur de football professionnel international sénégalais Donc voilà, okay. c'est notre Donc l'entraîneur qui est là, sur le mhm. terrain, et aussi par rapport au, au, au dans, dans, le domaine en tout cas de la vidéo. ok ok ça marche am na solo trop trop trop parce que euh, nit ñu bëri euh, je pense que xam na ay découverte lay doon si ñoom am na ñu bëgg football mais xamuñ ne peut-être ne football am na yenn euh, spécialité yu bëri yu nekk ci biir ay analystes vidéo et je pense que suñ gënee xuus ci épisode bi dinañ ko gën dinañ ko gën a découvrir dinañ ko gën a xam incha allah alors Amadou. est-ce que mën nga présenter wu rapidement yow aussi xam naa ne fan de football bu mag nga mais aussi nga waxaale ñu aussi lan nga xalaat ci football Sénégal rapidement quoi ak environnement bi ñu nekk tey jii nii quoi. ok waaye euh, Amadou Korka Sow euh, nga di membre fan de foot. Euh, maa <laughs> ah sama sama boulot sama liggéey ingénieur informatique la damay def ay solution digitale yi maa liggéey ak Umu groupe noonu la tudd léegi nekkatul Umu informatique. ah waaw man dafa mel ma fee bàyyi de. non la loolu la gars yi gën a xam sax. <laughs> ok mais la léegi nii tey loolu nekk ñu def euh, pour euh, l'environnement sénégalais la laa ci xalaat je man man euh, en vrai du ma ne j'ai pas beaucoup beaucoup regardé le foot professionnel entre guillemets sénégalais li ma gën a xam ou li ma gën a seetaan moo nekkoon nawetaan quoi tu vois donc loolu laa xam le foot amateur en général parce que xam nga soo nekkee xale parce que on te dans des écoles de foot tu joues dans des quartiers tout ça rek tout ça loolu loolu ci xaw a ci foot local bi en général mais pas vraiment euh, euh, euh professionnel sénégalais. ok ok je pense que avec Korka dinañ déc avec avec euh, Seydina dinañ découvrir ensemble affaire yu bëri incha allah tey d'accord c'est alors avant sax ñu dugg ci biir sujet bi di waxtaan ci biir a biir dafay baax comme sama genre gi ak ñi nga xamante ni nekkuñ ay euh, amateur de foot yu ngand ngand comme ça tu vois comme ni ko gars yi di dundee tu vois dafay baax ñu comprendre déjà football bi naka lay doxee alors coach est-ce que mën nga ñu expliquer football nag football bi naka la organiser woo dañuy dégg souvent ñuy wax FIFA ñi bu ñëwee Afrique ñu ne CAN am na aussi ay fédération de football club yi. ba ci nawetaan yi alors loolu yëpp nag naka la organiser woon naka la demee ak lan moo nekk lien yi xamante ni moo am ci seen biir. waaw c'est vrai football bi boobu c'est toute organisation comme ni nga ko waxee parce que. Mhm. Euh, euh, nu mu tudd euh, bu nekk dafa am lu la war te dafa am aussi ñu fa nekk parce que boo jëlee au niveau au niveau des districts la commencé après nga dem ci ligue régionale yi ligue régionale yi ñoom ñooy fournir les clubs. affiliés à la à la à la à la, à la fédération sénégalaise de football supposons comme Sénégal fédération sénégalaise de football. boobu moom mooy ki nga xam ne moom mooy organiser le football au Sénégal donc mission mooy organiser développer et promouvoir le football à l'échelon national cest fexe ba Sénégal fépp fu nekk rek te nga bëgg football rek nga mun a a pratiquer football nga mun a sport que ce soit amateur wala mu nekk professionnel donc loolu mooy rôle fédération léegi nag dafa am ay décentralisation au niveau de fédération mooy ligue yi ligue yi ligue régionale yooyu ñoom ñooy organiser seen football au niveau des régions moom nga moom moo tax ngay dégg souvent ñu naan championnat régional amateur donc moo indi loolu maintenant fédération sénégalaise de football moom moom am ku ko yilif ku ko yilif mooy la CAF mooy la confédération africaine de football loolu mooy waral Sénégal ñu daan qualifié na Coupe d'Afrique ak ak ak yeneen nga xam ne c'est organisé au niveau inter au niveau continental donc mais CAF boobu tamit dafa am peu supérieur muy la FIFA. Hmm, muy la la FIFA nag moom mooy vraiment la le le le du football mondial moom moo couvrir lépp donc FIFA boobu nag moom ci ay prérogatives am ak ay euh, nu mu tuddati ak ay. Euh, voilà ay sañ-sañam moom fédération rek la xam FIFA xamul état Sénégal. ah moom fédération yi lay liggéeyal. fédération lay liggéeyal. fédération kese tey jii FIFA xamul par supposons comme Sénégal ni xamul euh, état Sénégal xamul mak Sall xamul kenn fédération sénégalaise de football ak Augustin Senghor la ñu xam. ok ok donc euh, football bi noonu la organisé donc fu nekk rek dafa am bon a à part CAF aussi am na ay yeneen association ay Corne Bowl mooy Amérique du Sud Amérique du Nord ay euh, CONCACAF ay UEFA Europe ak euh, AFC Asie ak yooyu voilà donc lool yooyu yëpp nag ci biir FIFA la ñu nekk mais ku si nekk ak sa ak ak ak sa organisation maintenant loolu yëpp li leen lié nag mooy FIFA moo couvrir loolu yëpp et que FIFA mooy mooy mooy développer le football mondial ba comme ni ma waxee sa fédération moo aussi mu décentraliser au niveau des des confédérations euh, continentales confédération yooyu aussi transférer seen ay compétences aux fédérations nationales ñu koy wax les associations nationales association nationale yooyu di fédération transférer seen i compétences ci districts yi les ligues régionales les ligues régionales aussi transférer seen i compétences ci club yi yooyu nag ñooy fédération ñooy fédération sénégalaise de football fédération yi ñooy CAF mm-hmm. CAF ak yeneen confédération yi ñooy FIFA noonu la football bi doxee. ok noonu lay doxe organisation bu mag a mag la mais aussi damay dégg souvent comme léegi kii wax na ko euh, Amadou cest à ñu dégg ñu wax football professionnel ak football local lan moo leen waaw en fait dama dégg souvent ñu naan professionnel kan mooy professionnel ak moo nekk local. non c'est-à-dire du local sax c'est-à-dire dañu professionnel championnat sénégalais le championnat local. donc mais championnat local boobu. am na ay professionnels am na ay amateurs. ok ok léegi maintenant dans le milieu du football et professionnel. Hmm. képp koo xam ne yaa ngi def métier bi ba pare di ci hmm. fayeeku. Hmm. ñu lay fay c'est-à-dire da ngay contrat weer bu dee jot da am lu la war am aussi li war ki la employé donc ki la weer bu dee jot ñu fay la yow aussi nga topp nga topp li nga xam ne moom ngeen moom ngeen signé contrat donc mooy ki nga xam ne. boobu mooy professionnel métier waaw ah, mooy professionnel. amateur bi mooy ki nga xam ne moom nekkul pro nekkul du du professionnel mooy contraire bi daal mooy ki nga xam ne day football pour le plaisir. soit hmm. day football juste pour le plaisir ou bien day football mais fi muy football amuñu moyen wu fay. mais hmm. moom mu nekk ci di jouer donc te xaaru ci dara daal te xaaru ci ñu koy fay wala loolu. loolu mooy différence entre professionnel ak amateur. ok alors je pense que loolu yëpp bu ñu koy wax euh, c'est-à-dire il faut que ñun aussi balaa ñuy wax ci technologie bi dinañ ci wax lu bari mais au fait du ñun kese mais auditeurs yeeg ñëpp ñu xam déjà organisation bi nu mu demee parce que daf am solo trop balaa ñuy dugg ci affaire euh, technologie bi alors euh, Amadou dafa am loo ci bëgg dolli ci loolu noonu. non non non. pour il a il a tout bien résumé tout hyper bien résumé et euh, juste je sais pas comment il s'organise en termes d'organisation ci biir Sénégal parce que on a vu à un moment donné une équipe amateur je euh, professionnel mooy ñaari Italie qui est devenu NGB moo xam ne équipe bu comment ils font pour promouvoir en fait ou enfin apporter euh, quelques ok naka la ñuy dem ba passer ci équipe. Euh, amateur dekk professionnel quoi. waaw sa c'est c'est question bu am solo la aussi quoi. Mhm. oui bon pour moo wax c'est-à-dire loolu y a pas mal d'équipes yoo xam ne jàll nañ franchi nañ cap boobu c'est-à-dire tey jii mhm. Yogo. Yogo. Mhm. Yogo. nawetaan la woon. Liberté 5 waay. Euh, voilà nañ ba Liberté Liberté 6. Liberté 4 Liberté 5 Liberté 6 loolu yëpp voilà. Euh, donc dem nañ ba nekkoon fi équipe parce que amoon nañ ay liens ak Saint-Étienne et tout yéeg nañ fi di deuxième division yéeg première division gagné fi coupe du Sénégal joué nañ coupe d'Afrique et tout voilà donc club yu bëri passé nañ cap boobu ñaari tali tey jii exemple la aussi am il a pas mal d'autres équipes yoo xam ne aussi dañ parce que ay équipe nawetaan lañ yoo xam ne dañuy joué si nawetaan bi ba dem ba benn période boo xam ne nawetaan dootu leen doy parce que dañu am ay joueurs yoo xam ne ils sont assez talentueux te peut-être amuñu possibilité wu jouer feneen on ne peut pas s'organiser à ñaari tali doon nañu jouer championnat en même temps amaale aussi équipe nawetaan donc léegi la léegi léegi après la ñu la la ñu nekk carrément ci championnat bi mais donc loolu mhm. aussi ay procédure la rek da ngay appliquer voilà tu, mmh. tu veux aller en jouer en division régionale donc nawetaan nga woon loolu ne da ngay dem jouer division régionale da ngay wu à la ligue régionale de Dakar comme ñaar comme ñaari tali affilié foofu jouer après jouer championnat bi soo su soo amee possibilité yéeg parce que national deux la ñuy wax mooy régional après yéeg national une soo joué foofu aussi def ay résultat yéeg ligue deux mooy deuxième division foofu aussi nga dem compétir boo situé meilleur que les autres après nga yéeg première division noonu processus bi noonu c'est-à-dire libre quoi amul amul amul amul amul restriction mhm. cest à mais dafa am ay chemin moom ngay topp processus la boo xamante da nga koy topp comme déjà li ñu wax léegi rek organisation la football bi dafa am organisation stricte boo xamante ni moom lay topp donc képp ku bëgg yéeg aussi ci yenn niveau yi da ngay topp boobu ba dem donc li ma mën a xam daal mooy milieu la boo xamante ni c'est hyper organisé mais aussi milieu la boo xamante ni am na xaalis bu bari bari bari bari bari bari te ku wax te ku gis organisation yi nekk ci ginnaaw FIFA CAF ak yeneen yi nga wax noonu yépp fédération de football bi tout ça ah, surtout ñu nekk à l'international li ñuy fayeeku professionnel li ñuy fayeeku ci xaalis ah, c'est énorme quoi da ngay bu ñu la waxee seen salaire sax da ngay tiit alors lan mooy may xaalis football ak yan industrie ñoo nekk ci ginnaaw. bon football bi c'est vrai il y a l'économie du football parce que l'économie du sport en général parce qu'aujourd'hui euh, l'économie du foot au niveau mondial ça tourne aux alentours de 400 milliards d'euros. donc c'est 400 milliards d'euros 400 milliards bu bëri la c'est énorme bu bëri la. Mhm. donc mais li nekk ci gannaaw loolu yëpp mooy que léegi football bi moo toll foo xam ne c'est-à-dire que euh, foog mu am manne financière boobu parce que li ci nekk moo bëri. aujourd'hui club yi bon supposons bu ñu jëlee les clubs professionnels en Europe nekkatuñu ay club rek yem euh, mun nañ mun nañ comme des multinationales. parce que li ñu développé en terme de ressources humaines en termes de ressources financières ben c'est colossal donc euh, mais club yooyu ñu ngi tiré si ñu ngi tiré seen seen fortune surtout si droit TV yi parce que tey droit TV yi ñoom moo mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy presque club européen yu bare moo leen moo leen moo demee xaalis. droit TV mooy lan droit TV mooy lan. c'est-à-dire droit TV mooy sa image sa image yu équipe da koy da koy jaay à la télévision. c'est-à-dire ñuy diffuser say match si biir division match yooyu ñu ci def seen ay publicité euh, di wane sa stade ak ak ak yooyu di wane say terrain d'entraînement et tout ça donc tout ça c'est des droits d'image droits de TV ak yooyu même def même même même des joueurs aussi yooyu yëpp dafa duggaale ci biir foofu donc loolu mooy droit TV yi non mais droit TV yi aujourd'hui euh, da ngay gis une équipe boo ne tey jii sur une saison mu mu gagné ay des centaines de millions ci Droit TV sur une sur une saison kese donc c'est c'est énorme il y a il y a le sponsoring c'est-à-dire publicité yi ci maillot publicité aux alentours des stades publicité dans le stade et tout ça sponsoring le merchandising yoo xam ne c'est c'est la vente des produits dérivés du club donc boutique équipe bi des fois tu vois da ngay gis par exemple nga jël Manchester United mooy sama équipe de club ah tey jii. <laughs> ah oui benn benn maillot benn maillot Cristiano Ronaldo ñu ne la maillot bi ñu ngi koy jaayee cent euros cent euros mooy soixante cinq mille CFA. ah oui ah oui ah oui. ñu ja ñu jaay la ko tey. Ah imaginez nga ñu jaay ci plus de de mille articles. ça c' est c' est beaucoup ah d' argent. Ah non c' est beaucoup d' argent xaalis la bëri la. plus les produits dérivés ay casquettes yi ay écharpes ay voilà ay gadgets yoo xam ne c' est presque rien du tout. voilà donc mais yooyu yëpp yooyu yëpp c' est c' est quelque chose ensuite y a la billetterie nga xam ne ñëw. waaw le ticketing donc loolu yëpp mi ngi si euh, ticket yi des fois c'est des abonnements même da gis benn place boo xam dañ naan la place bi c'est un abonnement annuel man ma ñëw Manchester United abonné benn place annuellement même su ma ñëwul kenn du fa toog waaw ça c'est extraordinaire su ma ñëw kenn du fa toog donc ay Barcelone okay. ils sont cent vingt ils sont plus de quatre vingt mille sociaux mooy ñi nga xam ne dañu abonné leen mhm. place mhm. place bi ñoom ñoo ko moom quatre vingt mille ay nga dem Manchester. mais lii mais mais mais lii mu ngi may sa ça me donne des idées ah daf may jox ay xalaat ak suñ stade bu bees bi quoi démb rek maa ngi seetaan ñu ngi ciy wax ci benn télé mais war nañ ko mën a rentabiliser kon macha allah. mais bien sûr. mais hmm. effectivement ce stade là il faut le rentabiliser il faut le rentabiliser parce que coût non seulement coût bi cher na. mais entretien bi aussi cher na cher boo xam ne bu ñu ko rentabiliser wul après day mel ni comme yeneen yi rek day après day day day day day day courir c'est clair donc euh, voilà voilà. voilà en gros voilà l'argent du foot bi nga xam ne club yi moom moo tax ñu riche bon on parle de vente des joueurs mais vente des joueurs yi souvent du indil club yi xaalis parce que c'est c'est presque minime ñu leen mën a parce que des fois nga gis club bu perte joueur boo xam ne le joueur est de contrat donc le joueur il est libre dem pour zéro franc mais des fois nga gis aussi club qui a une pépite sécuriser gagné ci ay cent millions d'euros cent quatre-vingts millions d'euros deux cents millions si si ci ay image am. benn joueur non non transfert qu'est-ce que transfert joueur. ah ci transfert bi quoi jóge Real de Madrid dem Paris Saint-Germain on parle de Mbappé qui vaut aujourd'hui presque cent quatre-vingt deux cents millions d'euros bu bu ko fekkoon te ne Real jënd ko avant contrat bi jeex avant muy libre quoi donc voilà loolu mooy euh, mooy mooy mooy may mooy indil xaalis équipe les équipes ah. professionnelles quoi. alors Amadou Amadou yow lan nga ñu mën yokk ci loolu noonu quoi euh, lan mooy may xaalis équipe bi équipe bi maanaam football euh, dans le monde quoi. non dans le euh, c'est c'est li mu li tout de suite c'est la majorité des choses et je pense euh, le le l'abonnement euh, juste pour compléter aussi abonnement abonnement bi c'est pas juste une place que tu achètes souvent c'est des des d'autres comment dire nan lañ koy waxee Euh, tu as d'autres options aussi. Tu as, par exemple, euh, moi, j'ai déjà acheté l'abonnement de, de, la Juventus parce que moi, bon, il a parlé de Manchester, moi, c'est la Juve. Ah, euh, qui Manchester, lequel Juventus <laughs> Tu vois, et. Ah, et man, ça... man, man, man est-ce qu'il y a une équipe, équipe, équipe, équipe, ça, man Ah, autant ouais. Euh, Real, Real, Real, moi, je que c'est un. Ok. Real de Madrid. Ouais. Okay. Non, mais euh, ce que je disais, c'est c'est pas parce que automatiquement tu as acheté euh, les abonnements que dafa am plusieurs types d'abonnements et chaque type d'abonnement da lay offrir benn ay options yoo xam ne doo ko am ci yeneen yi tu vois donc euh, c'est pas forcément les places parfois tu peux avoir un abonnement et payer ta place aussi tu vois et parfois les abonnements peuvent te permettre parfois ngay dugg ci ay ci vestiaire euh, ñëw assister à ci entraînement yu ñu euh, clos à ah, huis clos par exemple wala ñu ne la par exemple. tu as des possibilités am ay maillot dédicacé tu vois rencontrer am ay photo ak benn et cetera donc dafay ànd ak dafay ànd quoi. da koy ànd ak ay avantages exactement c'est le mot que je cherche. exactement ok ok waaw ah non mais c'est c'est extraordinaire. c'est extraordinaire et aussi ce qu'on oublie ce qu'on oublie donné que c'est des entreprises c'est les investisseurs parce que au-delà de li ñuy gagner en termes de ticketing en termes de sponsoring et cetera dina am ay ay. Euh, mécènes ou d'autres gens yoo xam ne dañuy investir club bi des investisseurs dugal seen xaalis parce que voilà club bi am na potentiel et comme ce qui s'est passé avec Paris d'ailleurs Paris euh, avant les Qataris après les Qataris on voit la différence euh, ci euh, potentiel euh, financier bu ñu am tu en tout cas li ñu mën a xam mooy xaalis bi bëri na trop ci football bi euh, épisode bi peut-être du nekk affaire football kese sinon xam naa gars yi yu mag yi dinañ ma euh, mooy loolu quoi mais ñun dañuy waxtaan léegi ci benn domaine boo xam ne spécifique ci football bi c'est-à-dire technologie alors Amadou li ma bëggoon a xam mooy lan ko déjà wax nañ ne football bi am na xaalis am nañ lépp ñu ngi def ay chiffre d'affaires et tout ça donc li ma bëggoon xam foofu mooy lan moo tax football soxla xarala yu bees yi. Euh, parce que on a beaucoup évolué te gars yi dañu bëgg réduire euh, expert dañu bëgg réduire différents en termes de football déjà pour man sur le terrain. Mhm. réduire les erreurs. Mhm. tu vois euh, augmenter les possibilités. par exemple de visionnage de vidéo et cetera et cetera. alors alors Amadou je sais que. c'est très mm-hmm. difficile man à chaque fois épisode bu may def challenge la mais est-ce nañ dugal olof bi bu baax. <laughs> waaw waaw waaw des fois des fois ku ma ku ma invité rek dama naan lan challenge la quoi parce que c'est très difficile des nga wax euh, wolof kese kese kese tu xam naa moom ñaari mots français <laughs> oh, voilà ak nañ dem ci wolof wolof teg lañ nekk. ok allez vas-y. Mm-hmm. soxla euh, wàññi. erreur yi ñuy def ci par exemple terrain en terme d' arbitrage affaire yooyu noonu loo tax ñu bëgg soxla inclure nouvelle technologie pour en dehors terrain bi dañuy soxla créer excellence bu bees par exemple ñi nga doon seetaanee football doon ko seetaanee football léegi da nga gis par exemple ci benn action caméra bi mën a tourner trois cent soixante tu vois mën a ay kii yoo xam ne da ngay tu te comment nan la ko defee tu vois euh, tu tu vis mieux le na technologie bees par exemple. Euh, de réalité augmentée mun a seetaan marché ci sa table ak ay casque VR et cetera et am na ay affaires yu bëri yu xam ne dugg na ci football parce que def ko laaj léegi parce que yéen gën a foofu ci monde bi euh, mi ngi ñu ngi koy ñu ngi ci dugal nak nak muy offrir beneen expérience bu bees ci football bi. ci football bi quoi. ok alors coach yéen lan moo tax ngeen soxla nouvelle technologie yi maanaam xarala yu bees yi. waaw je pense que Kork euh, wax na ko wax na ko léegi mu leer euh, nouvelle euh, technologie xarala yu bees yi dafay dimbale juste nit ñi ñu bañ a ñu ñu wàññi ñu yu wàññeeku te aussi permettre nit ñu ay décision rapide ba pare yoo xam ne yu juste la loolu kese moo tax ñu soxla li nga xam ne moom la ñuy wax xarala yu bees parce que tey jii football bi toll na foo xam ne parce que enjeu yi bëri na enjeu financier économique yi ak enjeu sportif yëpp bëri na de telle sorte que euh, foog ñu réduire li nga xam ne moom mooy erreur yi parce que aussi sa draine de la passion passion bi bëri na si ak yooyu yëpp donc nit ñi tamit des fois da ngay gis ñoo xam ne ñi dañuy parier seen xaalis bu demee noonu loolu yëpp dafa nekk autour ba nga xam ne donc nouvelle technologie xarala yu bees yi dafa ñëw pour dimbale juste acteurs yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci football bi pour ñu jël ay décisions yu gaaw yoo xam ne aussi day day nekk bon mënul nekk ay décision juste à cent pour parce que ñëpp ñu d'accord non mais au moins mu nekk ay décision yoo xam ne ñun dinañ si d'accord au moins à quatre vingt quatre vingt dix pour cent waaw après le reste nag pourcentage bi si des nag c'est c'est c'est c'est les football day dimbale football bi euh, ci décision yi wàññi décision yi comme ni nga ko waxee léegi parce que di nga gis benn public boo xamante ni ñoom ñooy tàgg seen ticket di dem ci stade yi ñoom ñooy jënd seeni ay goodies c'est-à-dire mooy ñooy jënd écharpe yi ñooy jënd cap yi ñooy jënd maillot yu cher yi nga wax léegi tu vois alors su fekkee ne public boobu tey kontaanuñ par exemple match bi tey benn arbitre yàq na ko sifflet sifflet fin match bi te match bi jeexagul <laughs> wala wala mu tiire penalty te penalty amul tu vois alors genre yu demee noonu dina frustré Euh, dina merloo euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a may xaalis football te di jënd seen affaire yi dem ci stade yi donc nag pour wàññi loolu donc technologie bi ak xarala yu bees yi maanaam baax na ci trop pour mun a euh, xool naka lañu mën def ba mën a wàññi erreur yi nga xamante ni nit moo koy def. alors parce que loolu yëpp dañu bëgg mhm. jox acteur bu parce que football bi dafa bëri acteur donc dañu bëgg a jox acteur bu ci nekk gëdd bi nga am sa cër nga xam ne yaa ko moom. exactement exactement am na solo. ok alors mais mais même bi may préparer bi may préparer émission bi euh, gis naa nag ay jéego yu bari yu xarala yi def ci wàllum football mbaa jaaree ko ci affaire yi intelligence artificielle réalité augmentée ay puce NFC yi euh, robotique sax gis naa gis naa ay solution yoo xamante ni def nañ ko ci alors. question bi pour yéen ñaan ñëpp la c'est-à-dire yan technologie ngeen gis ne actuellement euh, mën nañ ko fekk ci football bi à travers le monde mais après nag dinañ ñëw ci spécifiquement Sénégal lan moo fi am ak lan moo fi war a am ak yan lañu def mais euh, ci àdduna bi yan technologie ngeen gis ne tey ñu ngi koy dugal ci football bi te baax na trop quoi. Ah, Amadou, vas-y. Okay. Amadou, vas-y. xam nga rek. Euh, uh-huh. léegi da ngay seetaan match bi di gis euh, façon football déjà est-ce que dañuy parler de kii de base euh, statistique de base ci footballeurs yi foofu laa na recommencé li ñu dugal mooy. bien sûr le fait d'avoir des ci ay ci ay uh-huh. dàll yenn joueurs yi par exemple pour. traquer euh, seen seen course traquer seen effort bu ñu def mun la expliquer euh, ñaata kilomètre de course la def ci terrain bi tu vois euh, fan la fan la occupé ci terrain bi nan ban ban partie wu terrain bi la daw ci fan la daw et cetera ban moo nekkoon couloir mun a analyser match kooku à la fin de la journée loolu benn partie la benn aspect beneen bi ci surtout ci kii nekk ci terrain bi. Euh, technologie wu but goal line su bal bi jàllee kii bi ñu mun ko parce que yaa ngi gis ay problème loolu noonu ay bi bal yu dugg <laughs> gars yi loxo gars yi amit <laughs> gisul <laughs> gars yi ah? ni duggul quoi non indi woon nañ fi même même je me souviens c'est il y a soriwul euh, toog xaw ma ndax euh, jancé di daa kii na ko dëggoon du ko war a fàtte cinq arbitres ci terrain bi ñu ah amee cinq oui cinq euh, ñaari arbitre yi nekk ci ginnaaw camp euh, yi ak trois de base yi tu vois. Mm-hmm. Euh, enfin est-ce que yeneen technologie remplacé na le fait que ñu mën a xam ne bal bi dugg na ou pas. Ouais. tu mais c'est c'est kii wu bees bi li problème polémique monde bi yëpp. VAR VAR VAR. <laughs> mu ah, vaar bi ah. am am <laughs> mën a mën a euh, utiliser en fait technologie audiovisuelle caméra pour mën a xool euh, ndax telle action se passé replay ko euh, ci temps bu court parce que c'est c'est long pour le pour les footballeurs mais c'est relativement court en termes de technologie dina mën a améliorer mais je pense que gars yi ñu ngi ciy liggéey bu baax baax. ak euh, pour pour juste pour terminer la lañ dugalaat en plus euh, point euh, euh, réalité augmentée mu lay wax léegi de plus en plus gars yi ñu ngi mën a sol ay casque immergé wu ci mhm. ci ci kii bi parce que loolu lay permettre casque virtuel yi réalité virtuelle moom la dugal ci match boo xam ne yaa ngi yaa ngi toog sa kër mel ni yaa ngi terrain ba wala mun a toog sa kër seetaan sa match entre guillemets ci sa tableau billard wala ci sa tableau salle à manger et cetera et cetera mu mën a reproduire euh, tout le match vidéo bi parce que permettre nañ ko léegi et loolu daal la si je me bien c'est li ma xam ne mi ngi ci football en ce euh, yoo xam ne implémenté wu na ak ki nga xam ne ñu ngi ñëw tuuti tuuti ok ok alors euh, coach yan technologie yow nga gis ne euh, actuellement ci monde bi am na te baax na jëriñ na bu baax football le monde du football waaw defe naa ne tontu wax na ko parce que li mu cité noonu yëpp yooyu yëpp ay xarale yu bees la yoo xam ne dugal donc muy VAR bi bi tout ça loolu yëpp permettre na quand même ñu avancer bu baax a baax ci yenn fautes yi yenn erreurs yi ak yenn prise de décision yi euh, maintenant aussi gars yi ngi xam nga technologie moom du doy te toujours gars yi ngi xalaat bi def ay recherche di gëstu bi gëstu di. jéem a génne ay yëkki yu bees pour juste améliorer que ce soit muy football wala muy feneen mais domaine bi ñu nekk ni muy football defe naa ne yooyu yëpp daf ci am solo parce que tey jii boo gisee ñuy jël puce di ko def daalu joueur bi boo gisee joueur yi ñu leen di takkal ay GPS cest ay ay ay ay ay puce la yoo xam ne aussi dañ koy sol di jouer ñuy xool seen effort yi ñuy produire parce que loolu dina permettre nga xam à l'en nekk à l'entraînement wala mu en match nga permettre ndax joueur bi li mu a daw daw na ko effort yi waroon a def def na wala def ko ñaata couverture de terrain la def yooyu yëpp day permettre yooyu donc mooy GPS léegi souvent jour yëpp a koy def le haut niveau moom ñëpp a koy ñëpp mhm. sol que ou ou à l'entraînement donc am na aussi yeneen yi expérimenté au niveau de la FIFA à savoir euh, la suivi automatique automatisé semi automatisé la sax parce que automatisé guñ ko carrément mais dañ ko semi automatisé rek pour projet yi euh, day day ñëw day complété juste affaire kii VAR parce que VAR bi non seulement day intervenir ci hors-jeu mais day intervenir ci but ci carton rouge wala carton jaune ak yooyu. ak di hmm. rappeler des fois des fois yu échappé arbitre ci gannaaw ñoom ñu wane ko wala ñu feeñal ko wala ñu rappeler arbitre bi ne ah, am na lu xew sa te yëgoo ko de après delloo bi hmm. et tout ça donc VAR bi mooy def loolu. Hmm. mais suivi semi automatisé bi moom c'est en direct. parce que boobu sax mooy gën a gaaw VAR. voilà mooy gën a gaaw VAR bi. parce que ay caméra la yoo xam ne ci terrain bi donc. Euh, dañuy topp action bi décortiquer c'est-à-dire mouvement joueur bi du début à la fin donc yooyu yëpp kii bon après nga ñëw tey jii comme bu ñu jëlee suñu stade bu bees bi ñu euh, tuddati pelouse bi c'est mooy ñuy jaxase gazon synthétique ak gazon naturel loolu aussi technologie la boo xam ne euh, voilà day yokk performance joueurs yi mhm. di limiter les blessures ak yooyu yëpp donc mhm. yooyu yëpp daal mi comme ak ni ko waxee ngay mën suivre takk sa benn ay lunettes yoo xam ne sans 3D di seetaan sa match comme si voilà yaa ngi si biir stade tout ça donc. Euh, mhm. affaire yi daal fu la ne fu la neex xoolee ko quoi. angle bu la neex nga xoolee ko angle bu la neex xoolee ko sachant tout <laughs> no non mais technologie bi am na solo comme euh, am na solo bu baax te comme man euh, ak ñi may nekk nii dañoo sopp des fois bu ñu gisee benn domaine rek dañuy jéem a dugg xool tu vois alors ci lañ découvrir franchement ay technologie yu bari yoo xamante ni alors on s'est dit que technologie yi tey euh, fañ koy defaree mu ngi nekk Europe États-Unis et tout sax xam-xam lañ ko defaree mais aussi ñun aussi ci suñu dëkk yi gëm naa ne ay informaticiens yu mag ñoo fi nekk tu vois ñoom aussi war nañ mun a indi seen contribution ci loolu tey. war a mën a defar ay système yoo xamante ni day mën a aider suñu joueurs yi parce que comme li ngeen wax léegi am na lu ñu wax goal line technology alors goal line technology euh, man d'après li ma gis ay technologie la yoo xamante ni day permettre nit ñi ñu xam ndax bal bi dugg na wala duggul pour que bal bi dugg nag c'est parce que dafay franchir benn ligne quoi alors ci biir camp yi dañ fay def ay euh, ay champs yoo xamante ni mooy permettre ñu xam bi ndax franchir na ko wala déet bal bi aussi dañ koy équiper benn puce boo xamante ni euh, day permetre ñu mun a envoyé information information boobu ci benn serveur ñu mun di après def reconstruction trois d c'est-à-dire ñu def benn reconstruction 3D image bi tu de telle sorte que dañuy gis bal bi ndax dugg na ci ligne bi wala duggul ci alors loolu yëpp nag ay technologie yu lu am yu am solo yoo xamante ni ñoom ñooy gérer uniquement affaire yooyu noonu quoi donc boo génnee aussi ci goal line technologie bi ak VAR bi am na aussi lu ñuy wax je pense ay EPTS mooy système électronique de suivi d'évaluation et de performance système la yoo xamante ni récupérer ay information yu bëri ci jour bi maanaam ñaata la daw tey ci journée bi est-ce que euh, nu mu tamit ni muy noyee baax na est-ce que ni muy defee action bi ni muy wëlbatikoo donc ay information yu bëri la ñuy jël ci jour yi pour mën a après analyser ko xool lan mooy nekk performance jour bi est-ce que jour bi prochain ma def mën a def sax ay diagnostic est-ce que prochain match bi dina performant est que tey war nañ mën a euh, jënd beneen jour boo xamante ni euh, performant na jour boobu est que nan la war a mel bu ñëwee ci stade bi donc loolu la ñuy wax ci ñun suñu langage ay prédiction te li koy def mooy intelligence artificielle donc tey boo xoolee kon ñu ngi dugal intelligence artificielle ci biir gis naa aussi beneen technologie boo xamante ni daf ma daf ma épaté wax dëgg daf ma jaaxal muy benn technologie boo xamante ni ay robot la ñuy utiliser pour jàngal gardien yi ay but robot bi dañ koy programme ba de telle sorte que day am euh, dans sa ay façon tir yu bëri mu ngi mel ni tey euh, Sénégal war a daje ak Égypte ñu jël ay ima ay information yu bëri ci waa Égypte naka la ñuy tirer penalty yi ñu jox ko robot bi rebeu bi donc day tiire ay penalty comme waa Égypte yi ñu teg ko devant ci suñ góol bi muy tiire xam nga loolu nekk na ay mbir yoo xamante ni man yaakaar naa ni tey Sénégal toll nañ foo xamante ni ci wàllu technologie parce que gis naa fi ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ils sont très forts war nañ mën a commencer di xalaat yuy yu demee noonu ba sax bitim réew di ko war a mën a jël jëlsee si ñun comprendre nga parce que tey nag euh, bu ñu demee tey ba gagné coupe d'Afrique tu vois euh, tey ak tamit xool Sénégal histoire am ci football war nañoo mën a ñun jóg en tant que informaticien commencer liggéey ci yu demee noonu lu ci mel ni aussi chaussures yi comme ni ngeen ko waxee chaussures connectées yi euh, dàll yi ak maillot yi nga xamante ne connecté wu en utilisant ay GPS ay accéléromètre ay gyro gyroscope yu demee noonu mais aussi am na benn entreprise bu mag <coughs> je pense bu ñuy wax DeepMind Euh, yaa ngi koy wax léegi ISRA mu ngi commencé di euh, pour coupe du monde bi pour xool naka lañ mën a utiliser euh, nouvelle technologie ba ak intelligence artificielle pour détecter ay hors-jeu tu alors donc man li may sama objectif ci émission bi mooy fexe réveiller informaticiens yi réveiller euh, scientifique yi nekk Sénégal pour que ñu ànd ak équipe yi. ànd ak foot yi pour que ñu ànd ak club yi fédération de football bi. allo ah, liggéey ci loolu quoi. tu vois ndax am na. wala amul mais je pense que war nañ ci. Euh, liggéey bu baax a baax. alors donc je pense que nag foofu la ñuy jaaree dugg ci benn question bi mooy waxtaan fii ci Sénégal c'est-à-dire. Mhm. fii ci Sénégal lan moo fi am ci wàllum technologie ci wàllum football. moo xam mu nekk équipe nationale wala mu nekk équipe nawetaan yi est-ce que am nañ aussi question boobu pour Amadou la je pense que est-ce que am nañ aussi ay start-up yoo xamante ni wala ay informaticiens yoo xam ne ñu ngi liggéey ci ay solutions pour indi euh, changement ci wàllum football bi déjà est-ce que première question bi euh. est-ce que pour euh, Seydina est-ce que déjà yéen ci football bi ci monde football bi est-ce que am na ay technologie spécifique yu ngeen seen club yi wala yu demee noonu quoi. xamaguma ay startup yu liggéey ci mhm. domaine boobu noonu mhm. mais sénégalais yi souvent c'est des gens très très compétents ci ay euh, field yu bëri sûrement am na kenn kuy liggéey affaire yooyu noonu mais moi je pense que zone boobu ça demande beaucoup pour l'instant da ngay mën a démarrer yenn affaire yu ndaw rek mais ça demande beaucoup de recherche il faut que il faudrait que par exemple Euh, parce que eh, il faut que ñu financer ko que gars yi mën a liggéey ci loolu mën euh, parce que gars yi ils ont fait beaucoup beaucoup de temps tous les européens su ko naree rek ñëw ay technologie ci ñun il faut que ñun tamit ñu mën a am ay cadre yoo xam ne day permettre recherche bi mën a dérouler wu mm-hmm. concrètement et convenablement exactement tu vois mm-hmm. donc c'est financement recherche recherche fini il finance Sénégal on n'est pas vraiment très connu pour financer beaucoup beaucoup la recherche tu vois même si bon on peut comprendre dans le cadre où on est pays boo xam ne amuñu xaalis bu bëri mën nañ ko tuuti comprendre tuuti mais pour l'instant je pense que dina dinañ ko dégg incha allah mais euh, ci ban ban type technologie ak ban niveau peut-être que mën nañ jéem a associé peut-être football amateur bi d'abord ou football pro bi ça dépend proposer yenn affaires yi nga xam ne c'est peut-être plus facile est-ce que déjà mën nañu am li nga xam ne football professionnel européen bi am na ko par exemple nan lañ mën a def pour indi parce que la technologie existe déjà on n'a pas besoin de la recréer. exactement exactement pour goal pour pour technologie bi et cetera et cetera. la ñu mën a def après pour le reste ay créer ay euh, senseurs wala ay GPS pour mën a traquer. Euh, performance aujourd'hui je pense que yooyu mën nañ ko développer. exactement exactement exactement moo tax technologie yooyu je pense que moom moo gën a am solo sax fi mu toll nii parce que comme li nga ko wax rek il faut pas recréer la roue. am na yu dox ba pare mais surtout si pàllum EPTS yi maanaam euh, système électronique de suivi et évaluation de performance je pense que war nañ ci mën a uh-huh. liggéey lu bari uh-huh. ak intelligence artificielle bi tu va ak ñoom euh, way Galsen AI yi ak euh, gars yu bari tu vois donc war nañ ci mun a liggéey tu vois man je pense que tey Sénégal war na ci mun a liggéey lu bari parce que en fait il n'est jamais trop tard mieux faire quoi tu vois parce que nekkul ne européens yi raw nañu rek que c'est fini c'est foutu pour nous tu vois. on ne mais tey man je pense que dañoo war a commencer ak sunu club nawetaan yi je pense que tey boo jëlee benn solution bu efficace nga defal ko club nawetaan reproduction bi day gën a mm-hmm. yomb après quoi te euh, je pense que ça sera l'occasion pour que euh, autorités aussi ñoom ñu am liggéey bu mag ci loolu seen volet technique yi euh, ak innovation ñu war a mun a développer am ay fédération fédération de football sax mu am benn bureau boo xamante ni si juste pour innovation technologique tiva donc ñu mun ko inclure dem yóbbu ko ci nawetaan yi c'est-à-dire ñu nekk di xool européen bi wala américain bi pour copier ko mais dañuy ñëw ci club bi xool lan mooy seen problème ñu jéem ko régler ak technologie bi tu vois mais pas rek dem jëli benn technologie bu nekk fële rek ñëw indi na da nga koy implémenter non mais dañuy xool lan lañ soxla ñu xool ndax technologie mun na ko régler ñu régler ko ci équipe bi je pense que loolu c'est hyper important alors Seydina lan nga xalaat ci loolu. waaw je pense que difficulté bi foofu la nekk si côté moyens mais su dee technique bi su dee technologie bi su dee ressources humaines yi aussi je pense que. ñu hmm. ngi Sénégal parce que parce que Sénégal moom sincèrement Euh, xarañ nañ xarañ boo xam ne tey jii mun nañ la créer yoo xam ne da ngay ça sort même de l'imaginaire da ngay doo yaakaar doo mosoon na ne sénégalais mun ko mhm. créer alors que alors que mi ngi du ma du ma sori je prends je juste un exemple yoo xam ne tey jii ñoo ma gën a jege muy yéen ñaar <laughs> voilà mu yow ak Korka <laughs> donc voilà bon plus plus plus encore ñeneen ñi fi nekk ay gaal seen IA ñooñu ko doon ko doon cité cité cité tout à l'heure rek ñooñu voilà donc affaire bi mu ngi fi maintenant li des rek mooy xool la faisabilité loolu kese la parce que tey bu ñu jëlee par exemple le nouveau stade de Diamniadio mais stade boobu c'est un stade ul stade ultra loo xam ne avec toutes les technologies de base du football bi laaj ñoo ko fa mais donc yooy tey jii mun nañ jël xëy na peut dans les stades yi nga xam ne dañ fay jouer le championnat wala actuellement sax dañuy jouer championnat parce que la ñuy jouer nawetaan yooyu essayer jéem ko fa euh, implanter ko def xool ce que ça va donner comme ay Gololine bi ay yooyu bon c'est un ça va être un peu compliqué à, comprendre par les autres ak yu demee noonu mais je pense que ni lépp loo gis dafa commencer donc commencer ko ci suuf léegi di jéem di ko améliorer ak euh, di flancher des paliers ak yu demee noonu mais en tout cas ce que je sais mooy que ni au niveau des équipes assez organisées ak au niveau des ay problème GPS ak yooyu yëpp boobu am parce que dañ koy dañ koy utiliser ñun fii à Diaba fii ma nekk. même nos plus jeunes dañuy sol ay GPS. donc on peut évaluer leur performance xam lu ñuy daw xam ce qu'ils font et tout ça donc euh, voilà quoi. ça je pense que c'est une base déjà boo xamante ni am na et travail bi ci des mooy informaticien yi ñëw yéem a xool euh, parce que en fait c'est vrai que man damay wax souvent que ne financement dafay bloquer des fois. parce que ni ñuy xalaatee financement ci suñ bopp yi mooy dem ba def ñuy bloqué da ngay toog sa kër ne ba ma bëgg def benn projet damay ut financement mais ki la war a financer foog mu am lu mu gis déjà wala foog mu am lu mu lu lu ko jaral mu ne dama lay financer mais munoo toog sa kër comme ni ñuy waxee ñoom boo euh, ñu système france bi peut daf ñu xaw a yàq ba mu ëpp toog sa kër bind sa benn document de quarante page de projet sur la base de rek nga bëgg ñu financer la sa benn projet alors c'est faisable hein mais je me dis que ne on doit pousser vers d'autres méthodes yoo xamante ni c'est beaucoup plus euh, euh, moo gën a moo gën a pragmatique tu vois alors nga defar sa ay affaires yoo xamante ni euh, da da ngay am ba da ngay am prototype tu vois tu as un prototype boo xamante ni tu viens tu le démontres tu fais une démonstration wane ko gars yi xam ne lii c'est faisable parce que aussi sociétés yi bokkuñ te li nga mën a dem wax Europe ne lii mën na nekk ñoom ñu gëm la. boo ko waxee fii dañ naan ax ah, ki day caaxaan rek quoi yow kii li muy wax ni loolu dafa mën a nekk tu vois alors fii dañuy teg seen bët bi bu ñu tegee seen bët bi gis ne lii c'est possible di nga gis ñoo xamante ni yaakaar naa dinañ ko financer te parce que je pense que ñu nekk ci football bi yëpp bëgg nañ football bi avancer te suñ gisee lu concret dinañ ko def mais aussi état ak yëpp war na aussi dimbale euh, gars yi parce que tey c'est sûr que ne boo bëggee tamit def yenn technologie yi amoo base bi c'est-à-dire am na yenn matériels yooyu soxla te mënoo ko am dinay jafe tu pour nga def ko des fois da ngay wax ne naa xo euh, naa liggéey pour am lu ma lekk am lu ma naan ak sama njaboot su ma naree dem di investir xaalis bëri c'est compliqué donc nag foofu tamit état bi war na ci dimbale euh, informaticiens yi ak gars yi yëngul start bi pour jox leen coup de pouce ci ci ci ci wàll woowu je pense quoi alors euh, beneen affaire bi nga xamante ni bëggoon naa ko ñu wax ci aussi mooy limitu technologie ci wàllum football ba fan la technologie war a yem ci wàllu football parce que gis naa ñuy wax ne. technologie mu ngi dem ba bëgg dénaturaliser football maanaam football bi naturelatul ki nga xamante ni mu ngi sol ay dàllam ñu def ci puce ah, ñu mën a xam performance am ba léegi est-ce que est-ce que naturel na quoi tu vois am na ñuy poser question boobu quoi tu vois alors ba fan la technologie war a yem ci football est-ce que tey dinañ dem sax ba euh, technologie remplacer arbitre bi ci terrain bi est-ce que loolu war na mën a am kor euh, kii Amadou. Euh, complètement mais est-ce que c'est souhaitable loolu loolu mooy sama question. <laughs> est-ce que bëgg nañ ko est-ce que ñoom est-ce que ñoom Korka bëgg na est-ce que ñoom. Euh, nu mu tuddati ñoom euh, Seydina bëgg nañ loolu. <laughs> oui non non parce que parce que paaru football bi. Mm-hmm. mooy paaru un peu euh, incertitude wu bal bi dugg naam duggul. tu vois tension bi affaire boobu erreur entre guillemets yi muy créer tension wu nu de sax est-ce que am na faute. ou pas tu vois tension wu gaañ na ko mais euh, mérité na rouge mais parce que alors bi gisul trop il a reçu un jaune affaire bi tout ce que le fait incertitude bi euh, euh, kii bi le facteur humain bi di apporté ci football bi moo tax gars ils ont des problèmes ak VAR en ce moment parce que c'est un gros problème le fait que ñuy ñuy ñuy dawal yenn action yi taxaw xaarloo ñu ci deux minutes dafay rëy match bi en fait ci yenn mhm. contexte yi tu vois alors que ci benn sens même si c'était injuste même si x y c'était tout yëpp moo doon def expérience su football en fait léegi parce que ga yi dañuy raté lool yëpp moo tax technologie bi posé leen problème je ne pense pas que mu doon euh, partie statistique bi ñuy analyser football parce que loolu c'est important parce que pour même yow euh, soo amee par exemple joueur bu am ay défense euh, cardiaque ñu mën ko identifier parce que on a bëggatuñu am benn problème mu nit kuy dee ci terrain loolu yàlla ci yàlla mosal te technologie mën na apporter dara tu vois mais pour moi c'est c'est la partie euh, bi technologie bi di yàq excellence bi ñu doon am ci football bi le gars yi bañ mais pas toute technologie bi man euh, pour man loolu mooy limite instant yi bi est-ce que bëgg nañ abit euh, machine. Mm-hmm. je ne pense pas que mu souhaitable. <laughs> ah gars eh, gars am na ay oto ay ay oto yoo xamante ni oto yoo xamante ni nit du ko dawal ti ah, tu am na fi ah. <laughs> non mais oui. technologie day avancée regarde hmm. regarde. man dama ne par exemple ci ay cas am na ay yoo xam ne man par exemple je prends euh, euh, match final Ligue des Champions. Hmm. Euh, Juventus Barcelone. Hmm. bi Dani Alves di jàpp. Mm-hmm. Euh, Pogba di ko retenir ci surface bi. tu vois mm-hmm. alors que on était à un un instant yooyu noonu xam nga su amoon VAR instant yooyu noonu. match bi beneen kii lay tourné. tu vois si si si mais. a perdu le mais noonu. mais c'est ça alors euh, euh, kii Seydina yow lan nga xalaat ci loolu noonu est-ce que technologie am na fan fu mu war a yem ci football bi. non pour man. am na fu mu waree bien sûr parce que tout simplement il faut pas que ñu dénaturer aussi trop le football parce que football dafa am benn côté artistique boo xam ne mhm, non seulement environnement football bi moo ko moom mais aussi joueur bi ci boppam dans son expression artistique mhm. corporelle ci moom moo ko moom mhm. donc ce qui veut dire que ça mën na nekk mën na nekk nag ñu dem ba ci kanam fi yëpp ay dans un monde futuriste boo xam ne tey di match yooyu dañuy parce que corps euh, comme ni y' a pas longtemps on avait cinq arbitres sur terrain ñaar ñu nekk ci gannaaw camp yi pour xool ndax bal bi dugg na du xool penalty yi demee na yooyu yëpp tey jii VAR VAR VAR bi remplacé na leen ñaar ñoom donc bi ñu ko indee c' était juste pour minimiser erreur yi comme ni ko après ñu dem ba si biir ñu indi VAR bi bi remplacé ñoom maintenant mën nañ dem kanam ay kanam ak kanam ak kanam ci àdduna bi aussi eh, robot yi en remplacé kii comme aussi di indi ay robot comme ni nga ko waxee sànq ci terrain ñuy remplacé joueur bi dóor ay pénalty dóor ay coup franc voilà ay machine boo xam ne ñooy propulser ballon yi pour les gardiens de ça va plus vite ak yu demee noonu donc loolu yëpp technologie la boo xam ne la boo xam ne tey jii mu ngi fi que kenn xamul fu mu jëm mais je pense que football bi tey jii euh, boo gisee Allemagne même bi VAR ñëwee ñoom utiliser wuñ ko directement ils ont un an deux ans après si lañ koy commencé utiliser Angleterre c' était pareil ñoom aussi dañ ko bañoon ñu ngi koy après lañ ko lañ ko nangu donc am na tukki yu bëri yoo xam ne ils étaient un peu réticents euh, président UEFA bi à l' époque Michel Platini il voulait pas bëgg ko woon mais mënu si dara euh, donc voilà donc ñuy dem ba si biir mu commencé installé wu di installé wu di installé mais je pense que am na foo xam ne euh, vraiment euh, technologie bi noonu war na war na fa mun a yem toujours bàyyi côté artistique ak côté culturel football bi mu mën a mu mën a dox. parce que suñu robotiser yëpp rek. voilà dinañ dem ba mm-hmm. robotiser ñi nga xam ne. mooy joueur parce que joueur yi déjà ñu ngi commencé robotiser. tey jii boo gisee am na ay euh, ay ay jeux vidéo yoo xam ne da koy seetaan mais ay robot ñoo koy arbitré. soo ko dem en en Corée au Japon c' est jeux vidéo yoo xam ne de de petite surface yoo xam ne ay robot donc ñu ngi préparé nit ñi loolu en quelque mais je pense que aujourd'hui fi ñu toll nii daal en tout cas ba fi ñuy jëmi moi je pense que ni ñu bàyyi benn partie bi nga xam ne football bi moo ko moom ñu may ko ko mooy li nga xam ne c'est ce côté naturel là pour ñu pour pour voilà am solo trop Euh, euh, solo te man li ma ci xalaat sax déjà mooy que ne imaginez on sait jamais bon je je dis des bêtises parce que man du ma du ma amateur football là mais xaw ma ci lu bëri bëri bëri noonu tu mais imaginez par exemple mu am benn équipe boo xamante ni ils ont les moyens am nañ euh, moyens yi pour mun a traquer seen joueurs yi performance yi ba sax wax góol bi ne ko tey jour bii fii lay dóor bala tu vois yow nga nekk équipe boo xamante ni amoo lool amoo performance yooyu amoo euh, équipement yooyu amoo euh, moyens financiers pour def loolu yëpp quoi alors est-ce que ñaari équipe yooyu bu ñu boolee tey jii est-ce que c'est c'est c'est équilibré tu c'est une question quoi est-ce que c'est équilibré parce que kii ay machines. Mhm. Mhm. xam nga tey jii allez vas-y xam nga tey jii dama lay jox benn exemple terre à terre rek boo xam ne ça se passe en Angleterre mooy. Mhm. les remplacements xam nga dans tous les championnats tu on fait cinq remplacements la ñu def ba en cours de match. parce qu'ils se sont dit que club yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp doole comme par exemple bu ñu ay Manchester City Manchester United Liverpool Chelsea ainsi de suite ils ont un effectif pléthorique boo xam ne banc de touche bi sax boo des fois booy gën sax onze ci biir donc ñu ne ñu ne bu ñu defee cinq changements ñoom ñoo ëpp avantage club yi nga xam ne amuñu doole am banc de touche boobu profondeur banc boobu. Hmm. gis nga réflexion ñoom. donc boo boo boo boo xoolee Angleterre trois la nekk léegi le paradoxe bi. ay ay bokkuñu bokkuñu fii quoi bokkuñu quoi mais seen loolu c'est au niveau local c'est dans le championnat parce que bu ñu en Europe ay coupe d'Europe ils le font def seen changement comme tout le monde. Ouais, mais au niveau local si si si si ba seen championnat daaw les clubs ce sont les clubs qui ont refusé les les bon les clubs yi nga xam ne ñoom gën a néew doole maanaam ñoom ñoo ko bañoon après syndicat syndicat ko donc ça veut dire que aujourd'hui tamit tey jii technologie boobu bu ñu ko bëggee utiliser ci club yi nga xam bon club yi nga xam ne tey jii ñoo ëpp doole ñu ngi koy utiliser mais utiliser wuñ ko peut-être en compétition mais ñu ngi koy utiliser pour gën a booster seen performance joueur parce que tey jii boo gisee tey jii rôle analyste vidéo yi loolu la dans un club tey analyste te da ngay gis tey jii benn analyste vidéo boo xam ne day dem bay proposer entraîneur bi stratégie de jeu parce que xool na analyser bi analyse adversaire bi daal dina ko ah bu ñu joué woon nii wala bu ñu defoon nii wala tey bu ñu defoon nii wala yu demee noonu di ko jox ay proposition ñuy créer ay modèle de jeu ak ay stratégies yoo xam ne lépp ci analyse la am na club yoo xam ne amuñu moyen mënuñu ko donc ñooñu dañ leen dominer par force tey jii aussi donc c'est pareil aussi technologie yooyu xarala yu bees yooyu nga xam ne tey jii club yi ko mën a offrir seen bopp bu ñu ko seen bopp tey jii nekk si kaw mooy li ce qui se passe en Espagne Espagne par exemple droit télévision yi club yi ñoo koy négocier directement. ok c'est la ligue de football. donc da ngay gis tey jii benn club Real de Madrid Barcelone ñu négocier seen TV am tey jii supposons benn écart bi tey dangay ngay gis ay ay ay quatre cent pour cent yoo xam ne écart entre Real de Madrid ak un club supposé plus faible. Hmm. alors qu'en Angleterre. Ah ah alors qu'en Angleterre dañ ko répartir équitablement. ba pare nag répartir ko mhm. équitablement à travers les clubs di nga gis tey jii Manchester. mais affaire bi daal daf may daf may xaw a niru ne sax dafa am ay courant socialiste capitaliste ci biir affaire quoi. te <laughs> le football bi. waaw waay football bi entreprise la buy drainer des fonds buy drainer mhm. beaucoup de richesses. donc capitalisme boobu. on est dans un monde dans dans un monde capitaliste aussi. dans un monde économique où. où vraiment voilà affaire bi di doon daal. ok non mais non non mais c'est là li ma gën a retenir sax ci sa wax mooy. Euh, naturel bi c'est-à-dire dafa am loo xamante ni c'est artistique c'est-à-dire jour bi ci boobu moom moo ko moo ko moo koy defal boppam sans pour machine assister ko sans pour autant leen assister ko tu vois et loolu c'est tellement naturel que day delluwaat ci ci xolu nit ñi dalee en fait c'est très beau quoi. moo gën c'est c'est plus beau que nga gis loo xamante ni c'est sûr que tey voilà si assisté par ordinateur et tout ça certes c'est de la technologie baax na mais euh, des fois aussi day indi ay jafe-jafe yu yu mag. jafe yu mag a mag. voilà mais déjà déjà déjà ñun en tant que sénégalais man li ma intéressé en tant que sénégalais en tant que tey euh, podcast wolof tech ñun li ñu intéressé mooy fexe ba sénégalais yi ubbi seen bët ci loolu xam ko bàyyi ko xel. commencé ci di liggéey du yomb nag tu vois c'est pas facile tu vois comme li ko kor kor ko waxee léegi dafay laaj ay expertise yu bëri lay koy laaj tu vois il faut être très fort en beaucoup de matière en beaucoup de euh, technologie en beaucoup de trucs quoi des fois affaire bi du nekk technologie kese mais li ñuy def daf yee bokk mooy xam domaine bi déjà c'est-à-dire avant ngay mën a indi ay solution ci benn domaine foog nga xam domaine boobu ni muy doxee te en tant que informaticien dafay baax te man ma ñëw dem seeti euh, Seydina te waxtaan ak moom pour xam naka la football di doxee ci biir su ma demee wax comprendre ni doxe doxee nag dinaa mën a xam nii lii ak lii seen problème la ah, dinaa ko mën a régler ak informatique bi wala déet wala am na yeneen solution sax yu gën a efficace peut-être informatique bi pour régler ko alors donc foofu la je pense développement di commencer et je pense que tey jii nii amul domaine boo xamante ni technologie waru cee mën a dugal loxoom pour que mu mën a avancer donc tey man appel boobu lay lancer à tous les sénégalais à tous les amateurs de foot à tous les euh, communes toutes les communautés sénégalaises yi nga xamante ñu ngi yëngatu ci wàllu informatique mais aussi di ko lancer euh, suñu njiit yi ak aussi club yi. tu vois ñoom aussi ñu bàyyi xel ne technologie mun na leen permettre ñu am affaire yu bëri mun na ñàkk nekk ay étude de performance ak ay goal line affaire yu demee noonu rek mais mun na am yeneen yeneen même ci seen organisation interne club yi quoi ay solutions yi ñu mun a defal. effectivement pour que seen club yi mun a gën a mun a dox tu vois pour que voilà ainsi de suite alors lan moo nekk. déjà déjà déjà moom moo problème mooy les. Ah, les suñu bëggee évoluer ci technologie bi il faut que gars yi automatiquement déjà uh-huh. au de base uh-huh. mooy club yi uh-huh. par exemple club yi mun a am ay ay euh, site internet mun a répertorier seen joueurs yi tu vois mun a mun a répertorier ñoom seen seen calendrier exactement de euh, foot mun a répertorier ñoom li ñuy def seen activité et cetera mun a impliquer nit mun a recruter ay nit ou euh, recevoir ay ay peut ay aide financière peut-être ay dons lay doon peut-être eh, que mu doon eh, eh, benn fenêtre boo xam ne mën na leen permettre par exemple ñu mën a recevoir ay propositions marketing propositions commerciales et cetera et cetera faut que ñu la à la base tu vois faut que loolu am xoolal xoolal rek ce qui se passe à l'heure actuelle par exemple Sénégal gagné na ko euh, et tout ñu ngi nekk vente vente maillot yi nekkul en ligne tu vois tu peux pas mënoo jënd ci boutique fédération amul boutique boo xam ne. Euh, mi ngi vendre correctement maillot yi en ligne et tout ça ñu ngi doon wax écharpe foog nga dem fédération bi ba Ouest Foire pour jëndi ko et c'est grave deux mille vingt deux quand même xam nga du du am na technologie bi existé na fi. Hmm. compétence yi existé fi. je te jure. dañ ko deful parce que il faut un peu de ah. pour que gars yi mais je je dis sax mais pourquoi pas ñu indi loo xamante ni dañuy euh, yenn nit ñi mën nañ dem photo ak coupe bi je sais pas moi pour am xaalis gars yi di fay pour photo ak coupe bi je sais pas. mais oui. <laughs> donc y a beaucoup d'initiatives. mais oui non en fait. y a exactement y a tellement de moyens d'utiliser technologie ci suñu avantage à parfois dafay dépendre ci mhm. volonté bi gars yi am pour dem foofu noonu parce que man je pense que mhm. bëgg nañ football Sénégal yi yegg fenn parce que su sa football local ah, yegg amee niveau mhm. sa équipe nationale day am doole waaw ça c'est sûr man de foofu man de fi may wax yoon yi foofu moom ma gën a intéressé sax nawetaan yi ci suuf waaw fexe jéem a xool naka lañ leen mën a aider ci techniquement ci seen i affaires yu sew quoi tu vois après nag yéeg ndànk-ndànk dem ci équipe nationale ainsi de suite ainsi et je pense que ça serait hyper intéressant n'est-ce pas. alors comme ni ko gars yi di wax nag li xaj ci li li duuf ci nag bi xaju ci cin bi te en plus coach tey dafa am match bu am importance mais ci tey ban match nga am tey. <laughs> non match championnat ligue la am contre AS Douanes ah mais ñu ngi lay a nga gañe nag. na nga dóor AS Douane yi métti dégg <laughs> bu ma AS Douane waa waa AS Douane mere nag. ma ñëw juste euh, rek pour pour pour bon pour dalal sa xel parce que sànq bële jaa ñu wax nawetaan. Euh, donc juste conseil des ministres euh, gouvernement bi passé nii rek le mercredi bi passé. waaw donc président Macky wax na ci ba jox ay instructions Matar Ba pour que xool nu muy redynamiser le nawetaan nan lañ koy gën a mun a ba mu nekk quelque chose de de de, de viable quoi. ensuite okay, mais fexe leen ñu bokk voilà ensuite fexe leen communauté technologique euh, li nga doon wax la ci affaire technologie pour que club yi aussi mën ci parfaire je pense que déjà am na benn pas bu tuuti bu xam ne gars yi duñ koy def mooy le fait que souvent par exemple tey jii yow yow yow mun nga nekk mun nga nekk suppose je prends un exemple comme ça euh, mun nga nekk Dakar par exemple mu mënoo déplacé wu ñëw Saly. Euh, comme par la marche jàmbaar doon tey bi munoo déplacé soli ñëw seetaan ko mais gars yi dañuy koy ba pare am ay li am ay liens yu ñu partagé pour gars yi mën ko seetaan ci ci ci whatsapp bi facebook benn genre yooyu hmm. donc je pense que je pense que aussi am na am na importance trop ba bon gars yi dañ koy seetaan comme bitim réew bitim réew fu ne dañ koy seetaan donc donc euh, donc c'est déjà quelque chose am na taux yu am euh, comme comme ñu koy wax léegi des sites internet bien sûr am na ay club yoo xam ne tey jii am nañ ay sites internet yoo xam ne boo si duggee mun nga visiter xool ce des fois des fois nag c'est pas à jour mais am ay mhm. quelques informations ak yu demee noonu voilà mais li mu mais mais li mu wax noonu c'est euh, hyper euh, important dafa war a am il faut ah, que le club se développe à ce niveau pourquoi pourquoi pas yéen tey ngeen war a am match ngeen am benn dispositif bu leen permettre ngeen def direct streaming ci seen site. ku bëgg dugg fay benn pass. tu vois ku bëgg dugg fay benn pass bu 1000 francs wala genre pour seetaan match bi en direct. ngeen koy am en 4K ci seen site. internet mais la lutte la la lutte la lutte sénégalaise tey jii toll nañ foofu. ah exactement tu vois voilà. mais football bi moo fa tollagul mais la lutte sénégalaise tey toll nañ foofu les promoteurs en tout cas. ñoom làmb ji souvent dañu duñ ko bëgg a wane la télé mais da ngay jënd seetaan en streaming mm-hmm. ah ah jox nga yaa ngi may jox idée ah, man war naa def làmb teg ah. <laughs> boo ko defee am ci dara de. <laughs> non teg oui làmb ak technologie. waaw oui. <laughs> ñu ngi ñëw waa CNG ñu ngi ñëw quoi. allez franchement maa ngi leen di remercier bu baax a baax ci seen euh, acceptation pour ñëw waxtaan ak ñun ci foot ak technologie mais je pense que débat bi dañ ko lancé tey mais dina continuer ci réseaux sociaux yi dinañ ci waxtaan dinañ jéem a xool aussi communauté bi naka lañ ci mun a regrouper autour des clubs tu vois dem pourquoi par dem seeti leen dem waxtaan ak ñoom ci seen i besoins il faut que ñu créer quelque chose bu bees parce que je pense que Sénégal euh, jot na ñu dëggal suñu bopp parce que gis nañ potentialité yi fi am tu vois c'est énorme xam-xam yi fi nekk bëri na ëpp na mu ngi tuuru mais foog nag tey ñu am dynamisme boo xamante ni moo ñuy permettre ñu am fulla ak fayda dem commencer liggéey bi réellement bañ ci xaar kenn donc loolu nag moo waral suñu épisodes yi ñuy def nii yëpp ah, di waxtaan ci affaire yu bëri ci technologie ak demee noonu alors euh, Amadou lan moo nekk sa mot de la fin ak ban message ngay lancer à tous les Sénégalais. Euh, merci merci à euh, toi déjà parce que pour le faire initiative bi nga jël pour des podcast ci parler bi ak football sénégalais parce que war nañ mën a gën a évoluer euh, sama xalaat ci man lu gàtt c'est que comme liñ doon li ma doon wax sànq il faut que gars yi am tuuti volonté gën a impliqué tu vois man gëmuma ni gëm naa ni plutôt euh, am na ni ci yoo xam ne ñi ngi fi am nañ xam-xam bi te bëgg nañ jàppale football bi mu yegg benn niveau bi parce que man ñaa ngi toog di seetaan ay kii di abonné ci ay club yoo xam ne seen xaalis bi may dugal foofu noonu ñowaat ñëwaatul Sénégal suma ma amoon benn club bu baax fii nii bu mën a abonné xaalis bi fii lay nekk nit Sénégalais lañ koy fay moom gënal. waaw oui ça c'est sûr. tu vois mm-hmm. moo doon idéal bi tu vois. Mm-hmm. mais loolu faut que faut que ñun ñëpp ñu jàpp ci euh, acteurs yi jàpp ci euh, gouvernement bi jàpp ci ak. yeneen entreprise yi nga xam ne ñoo nekk fii nii pour que mun a atteindre yenn niveau yi mais loolu day commencer ci la base muy club yi d'abord ñu def le minimum bi nga xam ne mun nañu exposer seen liggéey mun nañ war ne au mois ñoom ñi jëm après gars yi mun ci jàpp ñu mun a dem euh, vers l'avant quoi. macha allah loolu sama dernier mot. macha allah macha allah ñu ngi lay remercier bu baax a baax Amadou Korka Sow alors coach Seydina lan moo nekk yow sa mot de la fin ak ban message ngay lancer à tous les Sénégalais. waaw bon balaa may joxe le mot la fin juste pour revenir un peu ci parce que waxoon si topp mhm. noonu mooy si rôle analyste vidéo bi nga xam ne parce que am na solo parce que tey mhm. bees boo xam ne dafa nekk en plein essor. et que bëree donc euh, mhm. tey jii analyse vidéo bi dana day dafay dimbale lu bari entraîneur ak joueur. parce que day optimiser seen performance donc voilà capter euh, ay données. nu euh, tuddati observer ko analyser ko après ay statistiques ay chiffres yooyu yëpp dafa am solo trop trop ci ci ci football léegi donc il faut que ñu tamit comme ni ko Korka il faut que club yi ñu développé wu donc pour club yi développé aussi au niveau de la technologie c'est bien mais aussi au niveau des statistiques ak yooyu au niveau di am ay ay des staff yoo xam ne dafay am ay dafay parce que dana leen a xarañ encore ci seen liggéey parce lépp performance jour bi la donc bien sûr performance club bi le joueur est performant club bi day performant et club bi performant yi dafay visibilité et donc su amee visibilité day va s'ouvrir et que donc les gens vont venir après maintenant li comme pour le mot de la fin comme ni ko Korka je pense que il faut que ñëpp jàpp si parce que club yi club yi ñoom rek mënuñu demal parce que amuñu doole boobu on parle de football professionnel au Sénégal mais c'est encore de l'amateurisme man souvent dama wax gars yi kii ma ne leen mais ici au Sénégal nous sommes les professionnels de l'amateurisme ouais. donc voilà on est <laughs> ah tellement professionnels si, si. que euh, am ne ah mi ñuy échappé te normalement on a la possibilité de de faire il faut que maintenant ñëpp si toutes les parties prenantes comme ni gouvernement fédération club parce que les clubs professionnels en Afrique ici au Maroc wala en Algérie wala tout ça gouvernement moo jàpp donc Sénégal aussi foog ñu def loolu jàppale club yi club yi am tuuti doole mën a ubbeeku nag ci nouvelle technologie comme ni ñu et je pense que bu bés bu ñu demee ba toll foofu rek après on dinañ mën a prétendre suñu club yi dem au niveau continental gagné fa ay trophées euh, représenter en tout cas dignement dignement le Sénégal donc euh, voilà c'était mon dernier tout en te vraiment ci invitation bi ak ci parce que c'est parce que vraiment c'était très très très riche di nuyu Korko di ko féliciter ci intervention yu pertinentes yi et que donc voilà parce que le Sénégal ki benn daal waaw c'est le Sénégal qui qui gagne et qui gagnera encore inchallah rendez-vous coupe du monde coupe du monde bi moom au fait bëgg naa sax fekk technologie am yu génn bees tax déjà xam nga man damaa tàng ay dama tàng soxla comme ni ko gars di waxee <laughs> mais j'espère que j'espère que d'ici là inchallah on va se et dinañ continuer débat bi ci réseaux sociaux yi pour xool parce que xam naa ne borom xam-xam yaa ngi fi il faut que gars yi cuuj leen rek pour ñu génn commencer affaire bi quoi mm-hmm. ay yu ci mel ni ñoom Elias Waliba waa Galsen AI yu mel ni waa Galsen Dev ak waa Linux tu vois Sénégal ak euh, daara ji euh, Adi Ngom donc gars yi xam naa ne xam-xam bi mu ngi fi donc initiative bi donc il faut que ñu jàppale suñu football sénégalais pour que mu jëm ci kanam. suñ paree nag après bu ñu amee ay résultats nag gars yi war nañ mun nañ ñëw jëgaan si quoi yeneen pays nekk Sénégal Afrique mun nañ ñëw jël si technologie bi ñuy créer après incha allah. <laughs> allez merci beaucoup les gars maa un bon week-end euh, di jox rendez-vous encore auditeurs yëpp euh, semaine prochaine incha allah ci beneen épisode bu bees ak seen podcast Wolof Tech allez merci beaucoup passez un très bon week-end ciao. merci merci ciao.